merci di ko moom mi nga xamante ni moo doon wootee moo doon wootee euh, Mbour di xaar yeneen réaction ba léegi ci 77 810 90 90 salaamaaleykum. waaleykum ah, salaam. mbokk mi na ngeen def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. fa ñuy woowee. waaw maa ngi nuyu di leen woowee West Foire. naka waa West Foire. ñu fi baax ñu sant baax. ayca bisimilah ci waxtaan wi. waaw man de dama toog nii di déglu émission bi. Mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla mu am solo trop mhm. ñun wax dëgg yàlla duñu duñu yëngu ci politique mhm. duñu politicien mhm. ñun su defe suñuy politique suñ tubaab la ñuy politique daam ku ñu dégg léegi mu dugg di xaw a wax ci lu mel ni suñu kilifa gi sëñ Muntaxa di leen xamal ni sëñ Tuubaa mhm. yii gaa yi nekk nii nekkuñ ci mhm. ndax euh, bi muy jug di xeexal lislaam mhm. ñoom ñi toog nii yëpp di wax seeni baay wala seeni maam ñi ngi tëddi seeni lal ragal a génn kon yii nii ñuy def nii nañ ci génne suñu kilifa yi ndax euh, du respect te kenn ku nekk sa wéeruwaay nga am Euh, sëñ Muntaxa mi ñu bëri xamuñu ko gis nga sëñ Saliou suñu xalifa boobu suñu jëmm ju tedd jooju di ko sëñ Moussa Ka naan mooy doonay xalifa yi <laughs> boobu ay magam fi ay rakam fi <laughs> kon li sëñ Moussa gis ba sëñ Saliou mooy doonay xalifa yi <laughs> kon am na am lu mu gis bi fi sëñ caatu ah, sëñ Touba sëñ sëñ ab instant sama xol moo fees. d'accord merci on comprend yoo xamante ne merci merci beaucoup. ndax waa ji daf maa yëngal ba Serigne Touba. message bi jàll na message bi jàll na. merci merci nañ joxaat war ma suñu kilifa yi. effectivement merci. te xeex yi ñu génne ci maanaam kilifa gi. Mhm. suñ mun li ko fi maamam bàyyi dong ci la nekk nañ joxaat respect suñu kilifa yi mhm. te bàyyi sëñ Muntaxa ci xeex bi nañ ko ci génne ba mu set mhm. suñu kilifa la te ku ko laal dinañ ñu laal ñi ñi ñi ñoom comme Sonko jaral na leen nañ génn rayante ci terrain bi nañ rayante ci terrain bi lu lu ay mën sa moroom nga def ko ñu ngi jégalu bu baax suñu xol moo tooy. merci merci moo tax ñu dugg. merci merci jaajëf jërëjëf. jaajëf jaajëf merci beaucoup merci di ko di ko ziar bu baax a baax. di xaar yeneen réaction ci 77 810 90 90 euh, bon ci euh, wàllum information euh, on nous signale qu'aussi à Parcelles Assainies unité 20 non parcelle waaw euh, Parcelles Assainies foofu dafa mel ni itam am na euh, jàppante jot am diggante taqdeer yi ak ñi nga xamante ne ñooy ndaw yafa euh, Bambilor itam yëf yaa ngi wéy foofu fi nga xamante ne moo di Sangalkam itam ñu ngi ñuy signaler foofu itam am na ay manifestations yi nga xamante ne jot na jot nañ fa daal di am salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokk mi na ngeen def allo. allo oui. waaw na ngeen def. ñu ngi sant bu baax macha allah. foo ñu woowee. ñu ngi lay woowee depuis Saint-Louis. naka waa Saint-Louis. ñu ngi si jàmm ñu ngi sant bu baax. waaw ca bisimilah ci waxtaan bi. waaw jërëjëf ñu ngi lu waxtaan bi bu baax. merci beaucoup. c'est di euh, am lu nu naqa trop. Mhm. parce que yaakaar naa ne démb ak tey jii. Mhm. mën naa aw vendredi ba léegi sax. Mhm. Sénégal ñëpp si naqar nañ nag. parce que euh, dafa am loo xam moo am Sénégal. mooy Sénégal du ñu mos a xamee respect mhm. ak jàmm mhm. ak yëg kilifa ak yëg doomu aadama mhm. mais léegi nag loolu yëpp nañu salfarañ ci loo xamante ni neex benn parti boo xamante ni motuñu sax euh, cent personnes mooy suñu njiitu réew mi ngi dénk réew mi léegi bëgguma sax di def ay euh, maanaam conversation entre Euh, internet yuy dugg. Mhm. mais ñun ñëpp Sénégal noonu am. effectivement. léegi avant mooy dugg rek am na benn baay faal bu may dégg. Mhm. muy jéem wax naan ay kilifa yi noonu lañ jox orma. ma koy xamal nag faal ñun ñëpp a jox kilifa yu worma. mais sëñ Tuubaa boobu muy wax yal nañu yàlla yokk ci leeram. Mhm. Euh, gën taas ay barkeem. daa xeex ba lislaam taxaw ngir Sénégal. te ba muy xeex ngir lislaam taxu biir Sénégal ay tubaab noo ko doon bëgg fexeel te mhm. ñun waruñu nekk ay sëtam ay tubaab ba tey duñu fexeel ba duñu bëgg teg ñoom lu ñu bëgg te ñu ne ni yàlla dana gëm gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa gëm sëñ tubaaw ba pare nag bëgg ñëw di toog nii moom ñu mu doon xeexal ba tey ñun nooy toog di topp ci seen diggal kon ñu buñ ko defee rek weddi nañ sëñ Tuuba parce que sëñ dëgg rek la mos a bëgg mhm. mosul bëgg ay caaxaan kon ñun bu ñuy wax ci kilifa yi ñoom dañu war a wax parce que seen wax am na njëriñ mhm. parce que kilifa bu ñu demee ba tudd ko rek kàddu moo tax ñu wax mhm. te xam naa ni sëñ bi mi ngi wax mi ngi jëf mais askan yoo tey yëgu ni ni ñoom ni ngi wax xaw ma ndax déggante nañ mhm. parce que wax yaakaar na boo jëlee toog njaboote ñëpp nga toog ne diwkat li ngeen di def ci mim réew jaatuwut rafetut mhm. parce que dafa am ay mag ñu liggéey ba réew mi toll fii kon bu nu yàq loolu mag ñu liggéey mhm. mais bu nu bàyyi ay xale ñu def lu leen neex parce que tey président de la république mën naa ne ba tey sax dafa tënk ci biir njabootu sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Hadj Malick kon ñoom bu nu waxee ñoom ñoo ëpp kàddu sax président mhm. xëy na président da nga ko jox orna wa ormaam rek la nga ko jox mais kilifa yooyu noonu tey bu nu waxoon tey lii yëpp mën na jeex mhm. ñun foofu rek nañuy waxee mhm. mais waxewu nu ngir ay affaire Sonko mooy nangam wala ma nangam déedéet dañu bëgg suñu Sénégal wallahi jëriñ d'accord merci chaque jour jee fee gis ay eh, nit ñoo xamante ni dañuy ñàkk seen bakkan ci hôpitaux yi mhm. maanaam lu ñu naan dara bala dogal rek mënoo xamoo mënoo xam métit bi mhm. mais nag ñaan yàlla jàmm ñu ci si réew amin amin ndax jàmm sa lépp xaj mhm. ndax yow mii yaakaar naa sa temps bi nga jël yëpp pour wan Sénégalais yi li am si biir réew pourtant mënoon nga koy def sa yeneen euh, rédaction wala yeneen ak leneen mm-hmm. mais déedéet pour bëgg xam ne Sénégal seen réew lii moo la yàlla fayoo tamit amin amin li ngeen bëgg ci seen télé bi yal ko yàlla defal amin amin Sénégal yal na fi jàmm yàgg amin Sénégal yal na jàmm amin lu ma dañaan la jërëjëf merci merci merci beaucoup vraiment euh, <laughs> xaw xaw a xaw xaw a teg sax ay kàddu ci li mu wax day xaw a vraiment day xaw a compliqué ñu koy jaajëfal bu baax a baax vraiment il la il a bien parlé di ko jaajëfal mbokk moom euh, génn sànq vraiment xalaat yu mel nii itam des fois dañ koy daal di euh, dañ koy daal di soxna pour aussi ñu bëri gën a xam lan mooy essence su waxtaan wi ñenn ñi su nekkee dañuy wax ci wàllum politique aussi ñenn ñi vraiment ci wàllum société ak nekkin wi itam di ci àddu di ci def réflexion yu am solo ti di ciy baax mbokk moom di ko jaajëfal bu baax a baax di ko ziar di ko nuyu Aliou Fall itam yaak Baye Dame Touré ñoo ngi leen di nuyu. Ousmane Diouf ak euh, Mohamed Fall Cheikh Tidiane ñun ñëpp ñoo ngi leen di ziar bu baax. salaamaaleykum waa ñu ngi lay ziar bu baax. bu baax na ngeen def. waa sant suñ Tuubaa rek. alhamdulilah. foo ñuy woowee. maa na leen woowee Colobane. naka waa Colobane. ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. naka njaay mi foofu. ah njaay maa ngi nii rek dara taxaw daal lépp a taxaw rek. ah déet waay. waaw bëgg a participer rek tey nag tur nag. ayca bismillah lebal nañ la ko. waaw tey xam ne man nag moom. aw ma plan A B. Eh, sa plan lan la. Ousmane Sonko. <laughs> même même même bu faatu woon bu may jël sama carte dem ci ah, bàmmeelam di ko teg ah, moom laa koy faatu moom faatu moom ëpp naa jël exemple di non non dama la joxe exemple rek maanaam dama lay wax fi ma toll ci moom effectivement waaw ndax ñun comme ñu fi nekkoon dañ ñu doon nax ban yeewu mhm. maanaam dama ne woon moom bu demul tax ndokk yàlla ndax yee nañu mhm. man mosuma intéressé wu ci politique mhm. ginnaaw yàlla moom moo tax mais nag Sénégal métti na métti goo xam ne képp koo xam ne tiitoo rek doo nit fii ñu toll nii nii nii nii li mag ñi naan da ngay xal mu lakk sa dàgg ci la ñu nekk mm-hmm. njiit dafa war di jëlale di jéggale mm-hmm. ndax man deux mille douze na boobu xamaguma lu bari mais moom maa ngi def fefem mm-hmm. damay fàttali sëñ Sidi Muxtaar ba mu naan Macky Sall soo demee wuti boo ñëwee joxal njaboot gi ba pare te man dama jàpp ne bu fekkee yow Macky Sall defalut yàlla lu ko tax yàlla jox ko nguur gi bàyyi ñeneen ñi mhm. ndax amaana am na ñu ko fi njëkk a Seck moo fi njëkk ak ñeneen ñeneen te pourtant tooguñu mhm. kon su la yàlla joxee doole ngir yàlla dawala yërmande si taw askan mhm. tey am na lu réew mi doon mel kenn du dugg ci gaal yi kon ñëpp fii la toog ndax ñun Sénégal la am mais nooteel gi ñuy def réew mi képp koo xam ne waxoo ci rek da ngaa wax lu la neex. Mhm. teg Ousmane Sonko liñ koy teg man de fekkewuma ñeneen ñi mais mosuma gis benn opposant buñ ko teg. Mhm. te pourtant lii politique la rek waruñu woon a bañante mais dañoo dem ba dañoo indi énergie suñu diggante. mais léegi léegi léegi sëñ bi. waaw man pour man mhm. en fait. comme comme comme je l'ai hmm. su fekkee ne ñoom ñëpp hmm. Hmm. moo xam Ousmane sunk moo xam Macky Sall moo xam Idrissa Seck moo xam Khalifa Sall ak ñeneen ñi su fekkee ne defar Sénégal moo leen tax a jóg mais pourquoi ñoom ñu déggoo ci euh, ci ci nan la ñuy organiser élection yi ñoom ñëpp ñu dem bokk ki nga xamante ne moom la askan wi wóolu teg la fii mais et puis ñu bàyyi ko mu gérer réew mi est-ce que duñu jëm ci loolu su nekkee ñëpp ñoom ñëpp dañ ne euh, soxali réew moo leen tax a jóg waaw man xam nga xam nga lan laa gisewoon man damaa jàppoon ne dañoo war a bàyyi ñëpp ñu bokk. ci yoon le meilleur jaaj. ci yoon. ndax gis nga nguur suñu borom mooy tànn ku ko neex. Mm-hmm. te kami tànn jiit la judd. ku jàpp ne ne tëj nga Ousmane Sonko waaw jeex na da ngay nax sa bopp. te maay am lu ma lay wax fii. gis nga Ousmane Sonko ku yàlla mënul fexe ba du doon candidat. xëy na tuuti naa lool ci wax ko nag. Mm-hmm. xar baax moomal xërëm. yàlla rek. mooy fal mhm. li may ñaan daal képp koo xam ne yaa ngi Sénégal ñaanal jàmm mhm. lu ma ñaan ndax boo ko ñaanut boo ne sama yoon nekku ci mhm. amaana mën naa law ba fekk la fa ne effectivement ki nekk ci mbedd këram moo ci yam man ñuy wax ak yow su ma amee trente ans sax ca la yem mais dama ne la Sénégal képp lu da wax lu la neex nañu bàyyi Ousmane Sonko ñëpp bokk ki war a gañe gañe loolu mooy dëgg loolu mooy démocratie loolu mooy doxal réew. effectivement gis nga buñ ko bàyyiwul nag li dal Côte d'Ivoire danañu dal. ah yàlla buñ fa yeneen réew ak ah ñi parce que loo fi ñu fi ñu toll nii moom ñu toll nii moom. lu ñuy jëmal kanam la ñu bëgg vraiment bëgguñu ñu ñuy jëlal ginnaaw nga xamante ne. dañuy dem di mhm. xeexoo ak xuloo di. rayante guddeeg bëccëg vraiment. loolu moom yàlla nañu ci mhm. yàlla musal. vraiment yàlla nañu ci yàlla musal daal vraiment ay recul démocratique moom nañ ñaan ci yàlla musal quoi am na recul démocratique mu passé nga tëj ni ba pare na da ngay dismiss parti rek. waaw. Ah. loolu kay ci la recul démocratique commencé. mais mais mais oui ma côté boobu côté boobu itam. Mhm. est que tamit bon mhm. bon je suis peut-être mhm. pas bien placé pour le dire mais est que tamit mënuñu xaar un peu quand ba. yoon way liggéeyam comme je l'ai dit tantôt Ousmane Sonko quoi qu'on puisse dire tey amagul benn condamnation définitive tey mën nañ wax nit mën ko tere bokk ci parce que tous les voies euh, de recours possibles yi dox diggante ak Mame Mbaye Niang jeexagul digganteem ak Adji Sarr mm-hmm. jeexagul a door sax bii nii il est pour l'instant en détention provisoire bon mën nañ wax ni ba léegi quand même mën na nekk candidat donc euh, mm-hmm. mën nañ tamit garder espoir ci ñi nga xamante ne xëy na ñoom ñooy ànd ak Ousmane Sonko ñenn ñi sax xëy na mën nañ bañ a comprendre fi nga xam ne fa mu lay waxee ndax dañuy jàpp ne suñu toggee seetaan xëy na leneen ak leneen mën na ci topp mm-hmm. xam nga xam ma lay wax tuuti ku baax du ay kayit mooy def Ousmane Sonko candidat ndax maanaam dañ ne booy àtte nit yóbbu ko ci noonam mooy daaneel. Mhm. mandat dépôt Sénégal yoo xam ne mën na la kaa def cinq ans. Mhm. loolu moo moo àtte la tëj. parce que parce que dossier su nekkee en instruction surtout su nekkee crime. Mhm. dossier su nekkee en instruction surtout su nekkee crime ba tamit. comme di dit euh, mën na jël temps mun na jël temps. <laughs> oui ma <laughs> dossier bii daal du doon dossier boo xam ne jël temps ñoom li ñu bëgg def nañ. buñ yaakaaree na nag pare nañ mhm. dañuy nax seen bopp mhm. lii gën lii ñëw mooy gën a pire fopp li fi jaar lépp mhm. ci kàttanu yàlla d'accord merci te képp koo xam ne laale nga ci da nga ko gis insha allah d'accord baax na ñoo ngi tuub nag di jéggulu di rafetlu seen taxawaay ak ni ngeen ni ngeen waaye daal nañ gën a dolli ñaan ci réew mi rek amin amin amin soxla waaw loolu rek mooy l'essentiel bi soxla nañ ko soxla di wax suñu suñu suñu kilifa dina nañ leen respecté ndax wax nañ ba sonn xëy na ñi ni waxal a déglu kenn gi bari na waaye nag comme nit ki moo sëñ Abdoulaye daf ne woon bu fekkee mu na ngeen di jokk ci man bàyyi mu ma jiitu wala ngeen jiitu ko topp ci yéen mhm. waaw comme ñoom dañoo dañoo ji dañoo dañoo jiital nañ leen déglu rek ah effectivement li ci def nag suñu wàllu bopp la ñun ñoo koy xeexal boobu suñ bopp mhm. yàlla baax na yàlla yàlla dooli jàmm ci réew amin amin baax na jërë ngeen jëf merci beaucoup merci beaucoup di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne waxtu wi ñoo ngi ñuy euh, ñoo ah, parce que bon am na information yu bari yi nga xamante ne jàll na mais tamit sa sari très euh, <laughs> passé xëy nga baal ma nga baal ma nga baal ma salaamaaleykum allo